di nuyu ñi fi toog ñëpp di nuyu ñi nekk si biti bi di nuyu laay bu fii nii nga xam ne xam nga fi yàgg naa fi ñëw di nuyu presse beeg ñëpp ñu toog fii suñu papa yeeg ñëpp waaw di nuyu ñëpp daal di nuyu daal àdduna waaw di bëggee tamit jeunesse bi di nuyu jeunesse bi bu baax a baax a baax parce que bu ñëpp xam nañu bu jugee jeunesse bi dañuy génn ñëw topp ma yor koo xam ne nii Bou Siteu bu populaire la ñëpp xam nañ loolu waaw du nuyu ñëpp nag di nuyu tamit ku si mel ne xam waaw suma adversaire bi ñu koy wax Sonkotin xaw ma Sonkotin xaw ma Sankotin moo la jàppee di nga xam ni lépp dëgg la di nga xam ni jeunesse bi dañ maa yónni di nuyu waa Côte d'Ivoire dina wax xaar xam ne maa ngi ñëw foofu pour war a ñëw teg kii lu métti xam naa ni moom moom instant pour moom état bii nii mooy xeexal moom suuf boobu su ma demee Côte d'Ivoire ba ñëw ñii dinañ gisaat beneen Bou Siteu bu bokkul ak Bou bi ñu doon gis waaw. war ngay waajal moo bàyyi la nga lancé message Sénégalais yi. waaw li may lancer message rek di wax ne na gars yi préparé waaw le 6 juillet la place du souvenir waaw di ci woo jeunesse beeg ñëpp daal di wax ne kii moom gëm naa ne du ma guddeel. waaw dégg ko mën ko sërësi dañ maa yónnee yàqamte ma te kii maa ngi ko gis si vidéo yi comme TikTok bi muy yéeg si ay garab ak yooyu sama digga na maa amul ay yéeg garab de moo la dencee naa la teg lu métti lu métti laa lay teg waaw Songo Tine donc je te laisse aussi que là on va merci beaucoup eh, je de école de rue

Bou Siteu niveau la. niveau ñëpp xam nañu sama niveau dépassé na yenn niveau yi. loolu la demee maanaam lii solo niveau la daal. ak leen Bou Siteu ak sama